dañuy bëgg saa yu Sénégal amee gan ñu wan ko ci li nga xam ne foofu lañ toll ci xarala ci nga xam ne mooy suñu mbatit ci aada ci ci cosaan waaye dafay fekk it ñu wane euh, taxawaay bi nga xam ne bi ñuy monter exposition bi jigéen ñi ci diggante jël euh, li ñuy bayee fii def ko ay mbubb ba mu rafet ba mu tolloog yi nga xam ne moom la ñuy jëgaane bitim réew wane it ne ci bijouterie wane ne ci ci ci defaru der nan la ñuy def ba nit ki lépp lu soxla mu mën koo mën ko am nit nag boo amee gan da nga koy wan fi nga toll moo gën rek gan ngi ñëw euh, toog lekk demaat loolu moom moo tax ñu monte exposition bi bu fi gan ñëwee wan ko suñu aada wan ko suñu cosaan waaye wan ko it fu ñu toll ci rafetal ak taaral ci jamono yi loolu moom moo tax ñu boole ñaw yi ak liggéeyu wuude boole kook liggéeyu tëgg bi boole kook liggéeyu bronze ba pare indi ay xale yuy jëmmal suñu nekkiinu démb ak suñu nekkiinu tey indi ay musiciens yoo xam ne la ñuy nekkul rek ngir xool yi féex waaye dafay wane ñun fi ñu tolloon ci développement laataa sax tubaab bi di fi ñëw